d'accord nga si bi mais da nga émettre ay réserve yu bari quand même. waaw xam nga toujours euh, politique mom dafa laaj waxtaan. waaw même bu fekkee ne da ngeen bokkul gis-gis lépp loo xam ne ni dañ ko war a waxtaanee pour réew mi jëm kanam ci intérêt réew mi ah, ñëpp ci war a ànd même guerre bu amee ci diggante ñaari réew.

wala ay règles yoo xam ne leerul ñu war ko leeral wala mu am ay événement politique yoo xam ne nit ñi sonn nañ ci bëgg ko seddal loolu dafay laaj dialogue boo gisee man euh, woote waxtaanu président Macky Sall sama xel tey ci mooy daf ci tudd ay sujet yoo xam ne yi du sujet yu ñuy waxtaanee loolu mooy premier problème bi ma am sujet yu ñu dul waxtaan yoo loolu kenn du ko dialogue

moom ci boppam mu dëggal ko parce que moom moo ko laajte initier ko ñu bind ko mu wax ko waxati ko bu demee ba ci biir moom ci boppam mu soppi doxalin sotti xalaatam ne léegi moom daal ah wax na ko waaye daal euh, même bu ne sax exclurutu ko rek boo wootee waxtaan ci loolu rek ku la ci topp rek dafa mel ni daf lay dëggal ci loolu dafa am lo xam li kenn du ko waxtane mi waxu ko nii rek amna na fu mu ko fu mu koy tam tek ak foko ko munti teg parce que en tant que aussi homme d'état doon naa la xaar nga ne ma peut-être walu 3e mandat bobu xëy duñ ko waxtane mais quand même acceptons que y a une institution judiciaire bo xam ni si walu mandat yeeg institution moo koy interprété muy le conseil constitutionnel non non non non non peuple bi oui moo koy moo koy réglé bu laajee interpréter ñu doga dem fenen mais li dafa laajul interpréter peuple bi daf ko Le peuple souverain doit ko 2011, 2001, régler régler donc l'OLU, arbitre central. bu sifflez fin de match. ne ñaari mi-temps arbitre de tous vous ci dara. mais il y a aussi du peuple qui dit que. Macky Sall a droit à ko sax donc boo waxee peuple bi day mel ne askan wi yëpp ngay wax te xam ne ma ne bëgg nañ Macky Sall demaat dafa am ñoo xam ne dañuy politique dañu dem ba ci biir ñu gis ne affaire yi daal jeex na ñoom foogoon nañ ne du jeex léegi jeex na mm. bëgguñu dem wala ragal nañ dem ñu ne nañu wut pexe pour toog mais loolu leer na donc boo ma mm. wooyee man ci waxtaan boobu jaloog mm. de suur lay nekk kenn du dégg sa morom moo tax man du ma dugg si caaxaan mais est-ce que Macky dafa wax dafa bëgg ñu waxtaan ci troisième mandat parce que wax na ko parce que parce que gaay ne ko interview mais dégg mom wax lolu kam mom mom d'ailleurs même bu ko waxul junj doyna borom xel. waye même nee wax ne bokkoo sax koku bañ jàmm la xam nga lolu mom moy damay bokk. jàmm gën troisième mandat bi lay wax xam nga lolu lay wax nee mom le fait même sa ngay wax jàmm gën troisième mandat bañ jàmm la. donc lolu leer na donc man duma dugg ci ci ci xaan ben lolu nañ ko dindi déjà. ok première chose. ñaarel bi dossier judiciaire nga top nit wo aduna yep ne kii dafa luubal alalu rew nga top ko toppin bo xamne bi ñep gis nañu ne yoon yi nga waron jaar jaarof nga top nit aussi top bo xamne ne gis nañ ne da ko bëgg a pour mu bañ a ci élection yi ak lu mu def ba paré nga dem ba ci biir nga ne nañu waxtaan pour xol naka lañuy fexé bañu bok <coughs> Madame, éligibilité li qui topé toppee ba mu seen keuyit naka lay def ba ko ba seen keuyit baxat kon da nga ni bi politique nga bëgg a man damay bañ ñu institution état parce que amnistie doit ay affaire képp ko ci alalu même bu même pour une seconde bu dee nag affaire politique la ñu ne ay guerre Casamance ay combat politique mu am ay truc ay coup d'état yooyu mun nañ ko waxtaanee ut ci amnistie mais amnistie kenn du ko tudd ci affaire u alal xaalis